asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nuyu bokki jullit yi di nuyu bokki taalibe du nuyu bokki Sénégal eh, di sant yàlla sunu borom mi dimbali ba ñu génn ak jàmm ci bis bi ñu doon jébbal Cheikh Mouhamadoul Mountakha caabi këru xaside mu nekk ci biir université bii nga xam ne moom la wax mu jàmmaw Cheikh Ahmadul Khadim bisub gaaw la woon 19 août 2023 dëppook ñaari fan ci weeru safar wii atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom bis bi nag Sëriñ Tuubaa ci boppam moo réyal bis bi àggale ko foo xam ne tolluwaay xaside rek moo ko waral moo waral dara xajul woon ci bis bi lu dul jébbal sëriñ bi caabi ji jébbal ko sunu cent feddali suñuy laxasaay ak seereel ko ne seereel ko ne jëf ji Hizbut Tarqiyyah rek jëfu ko waaye daf ko ànd ak mboole mbokki jullit yi ak mboole mbokki taalibe yi loolu waral nag ñu suwaat tey ngir gën yaatal cant yi ci mbooleem ñi nga xam ne àndoon nañu ko ak ñoom seqoon nañu liggéey bi te ñu taxaw ci taxawaay yu rafet cant gi nag ñoo ngi koy tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom mi nga xam ne ci ndimbalam ak ci ndigalam lañu jotee ci liggéey bu màgg bii umpale ne mënoon na koo liggéeyloo ñu bari ci yoonu murit ñu am ci yéene lool ndax gënu gënuñu leen koo yeyoo waaye fadlu taxsis la jagle boo xamante ne boo doon xool ci sa dund doo gis lu tax nga ne lii moo ko waral kon dafa soob suñu boroom rek mu def ko loolu nag cant gi ci war ñu lott nañ ci waaye dañoo war a dem ba jeex yamu ci daf ñëw gunge ak ay ñaanam ba fu ñu toll ci liggéey bi keroog ba mu tàmbalee ba bisub tey ñu gis ne ak ñaanam moo yombal lépp moo yëwee na lépp noo ngi sant nag euh, mboolem njabootu Serigne tubaa kenn desul ak mboolem seex yi kenn desut euh, bu ñu ko jébbalee Cheikh Mouhamadoul basiir dafa mel ni dina ko jottali ñëpp ndax mënuñoo lim boo jëlee itam njabootu seex yi bu ñu tuddoon njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ndaw yi fa jóge dafa mel ni kenn du des kilifa yi yoon wi ñëpp tàbbi nañ ci biir. Euh, ku seetlu jataay bi itam di nga gis délégation bu mag bu bàyyi ko ci gouvernement du senegal ñu mën cee tudd euh, ministre d'État. Mbaye Ndiaye ministre de la culture Aliou Sow mu ànd ak ministre du commerce yor tamit kàddu gouvernement bi muy Abdou Karim ak commandement territorial bi yëpp ci région bi tàmbalee ko ci gouverneur moo xam préfet la wala sous préfet ak délégation commune Touba loolu nag euh, wane na ne eh, bis bi ñor na leen te yitteel na leen moo waral ba ñu accès yóbbu nañ leen ba ci sëriñ bi ñu nuyoog moom ñu seere ko seen taxawaay bu rafet. lii nag daf ci am sax loo xam ne lu mët a sant yàlla suñ borom la mooy rawatina teewaayu ministre de la culture ndax bu jëkk ñépp xam nañ ne culture bu ñu ko daan wax dañ ko xataloon ba mënoon nañ ci sax bañ a gis suñu bopp euh, mu mel nii da ciy bari loo xam ne yeneen réew yoo xam ne yeneen aada lañu am. ak yeneen cosaan lañu am dem na ba daanaka dafa mel ni ñoom dañoo gënoon a fës ci suñu culture tey jii nag dafa mel ni gis-gis bi gën a yaatu gën a dëppoo xam-xam ndax culture ak civilisation boo leen boolee war nañoo mën a doon sax ay synonyme loolu moo tax tey jii soo jëlee xaside yi jël ndono li nga xam ne Serigne Touba bàyyi na ko fi ak ñu baax ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel ñu doon liggéey lislaam loolu bu feeñee ci biir euh, culture ba ñu teew ah war nañ cee sant yàlla xam ne ak de ak dolliku ak yokkute am na ci kon cant gi day delluwaat ci gouvernement bi yëpp ci njiital premier ministre waaye dem itam ba ci président de la république ndax liggéey bi benn liggéey la ñu seq réew mi rawatina itam ginnaaw monument bii di euh, këru xaside yi bibliothèque la waaye musée la di loo xam ne itam patrimoine la bu àdduna sépp seq kon loolu su ci état bi taxawee noonu war nañ koo tudd war nañ leen sant ngir séntu itam ñu ànd ak ñoom ak ñi yor université bi ba yëf yi mën a àgg foo xam ne àdduna sépp dinañ ci mën a jëriñu. di sant nag mboolem kilifa yi teewoon wala ñu teewal leen fi ndax xataayu waxtu bi tax na ni ñu yéene woon na saafonteeg ñoom ñëpp yombutoon xaju fa woon itam waaye yëg nañ ko ci sunu xol sant nañu itam te ñaan nañ sunu borom. fay leen seen taxawaay yooyu pay goo xamante ne dina kawe seen njort ci àdduna dina kawe seen njort ci àllaaxira wëlbatiku di sant mboolem membre Hizbut Tarqiyyah yi bàyyiwuñu kenn bu ñu tuddee membre Hizbut Tarqiyyah yi nag faw dinañu jëkkee suñu jàmbaar ji sëñ Atou Diagne yal nañu ko yàlla fayal ndax gis-gis bi xalaat yi fit wi ak njàmbaar ji loolu moo doon li nga xam ne moo indi fondation liggéey bi ak gis-gis bi kon euh, tànk yi nga xam ne ak yoon wi mu xàlloon moom la membre yëpp topp am ci pas-pas di ci jongante kenn ku ci ne bañ a des ginnaaw du góor du jigéen du mag du ndaw kon ñoo ngi leen di jottali ak cant goo xam ne lenn rek lañ koy tëjee mooy ñu xam ne ki ñu koy liggéeyal moom musta wàcc saa su ne bu àggee ci suñu borom fa gën a kawe keroog lay gën a laxasaayu ko riir wutali boromoon boromam ilaa man la woo kulliyati xat tawajjahat mi daal di waqalaami xat kaana lii mën naa di sant itam nag liggéeykat yi nga xam ne ñoo seqoon liggéeyu bibliothèque bi muy këru xasida yi banqaas yëpp tàmbalee ci architecte yi euh, ñëw ci ñi nga xam ne mooy ingénieurs yi ak euh, service yi nga xam ne yëpp muy corps de corps de métier yëpp yi nga xam ne ñoo ko àndoon ci tàmbali gi ba fii mu yem bàyyiwuñ ci kenn kenn ku ci ne yàlla na ci suñu borom defal ak pajuk aajo euh, di sant bokki taalibe yi ak daayira yi rawatina waa Touba saa su ne ñu ngi doon ñëw di ànd ak ñun liggéey bi loolu nag ci njëlbeen nga ba fi nga xam ne fi lañ jëbbalee sëriñ bi liggéey bi. wàllu organisation ziar bi itam nag am na ci loo xam ne wàllu boppam la ndax mbooloo mi ni mu takkoo saa su ne dañ ko daan ànd ak commandement territorial sous préfet mu saisir mbooleem ñi nga xam ne mooy service d'ordre yi euh, muy service déconcentré yi nga xam ne dafa jëm ci lu mel ni police gendarmerie waa UCG waa service d'hygiène waa OFOR euh, ak ñi nga xam ne moom dafa mel ni euh, ay opérateur de télécom lañu kenn desut di ci beral nag waa Sonatel ñi nga xam ne ni ñu dikkee bi yoon war nañ koo tudd war nañ leen cee sant ak équipement yi nga xam ne dañ koo indi jébbal ko këru xaside yi loolu kon ñu ngi leen ciy sant ndax Serigne Touba lañ ko defal. bis bi nag ngir mëtale cant gi du yomb waaye ñoo ngi ñaan képp ku fi teew walla nga yéene woon ko suñu borom faj sa aajo ci barkeb xaside yi noo ngi dellu di santaat Cheikh mun Mountakha ndax ginnaaw bi ñu ko jébbalee liggéey bi dafa wëlbati ko waa dénkaat nu ko loolu ñoo ngi koy wax waa Hizbut Tarqiyyah waaye di leen wax ne liggéey bi Hizbut Tarqiyyah rek moomu ko ndax sëriñ bi dafa wow tamit si Ahmadou boole nu ak moom wax ne dafa bëgg isbu tarxiya ak rawdu rayaxin gën a boole seen bopp ngir liggéeyal sëriñ Tuubaa ci xaside loolu nag kon liggéey baa xam na ne li taxaw sunu kanam ci dajale gi ak li taxaw sunu kanam ci liggéeyu mool li taxaw suñu kanam ci liggéeyu toppaat ak wéral gi loolu bari na ñu ci nekk ci yoonu murit di ci def liggéey bu bu matale kon ñooñu war nañoo ànd euh, jokkaloo ak ñoom ànd ak ñoom àndin wa gën a rafet ba li sëriñ bi bëgg ci lii mu am ko di ñaan euh, ci barkeb Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne feeñal na mbégam ba àdduna sépp xam ko kon caabi joojee ñu ko jébbal na doon caabi ji ubbi buntu mbég ak buntu yokkute ak buntu am jàmm ju sax joo xamante ne du yem ci nun waaye dina yaatu ba mën a laaw ba mën a law ci àdduna sépp di ñaanal mboolem mbokki taalibe yi nu gën a laxasaayu gën a tënku ci li nga xam ne mooy bëgguk Cheikh Mamadou Mountakha ndax moo ñuy may leenu gën a bëgg àdduna ak alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.